yàlla na yàlla yiiral boppam. amiin yaa rabbi. soxna Fatou. Mhm. dëkk bii di Sénégal. Mhm. la kenn xamul fan la jëm. est-ce que amul ku la mën a wax ni la Fatou. Mhm. Sénégal fii la jëm. wala boog Sénégal fii la tàmbale. waaye Sénégal fii la jëm. réew mi jaxasoo torop torop ak lu nit mën a wax. Hmm. ak fu mu ko mën a jaare mooy Sénégal dëkk la boo xam ne dëkk bu nekk en danger. en danger dañ koy nangu. ni nag bu yàlla tegee nattu sa kaw. Mhm. wala boog nga teg nattu goo xamante ni yaa ko teg sa bopp. dangay ngay nangu. da ngay nangu. Mhm. soxna Fatou nga laaj question bu riche. Mhm. question bu doy waar. parce que boo nee lu tax rey yi bari ci Sénégal agression yi. agression yi. dafa fekkoon ni suñu borom wax na ko bu yàgg. Mm. yàlla ne woon na dinañu nattu. Ah, di. ah yàlla waxoon na ko. wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsi min al-amwali wal anfusi. mais adduna bi lay natt wala Sénégal. kese yàlla nee na adduna bi yëpp dinaa leen nattu. Hmm. loolu waxu suñu borom la suñu ba pare wax ni ñuy nattoo. Mm-hmm. bu njëkk mu ni dinaa leen natt ci tiitaange. ci ti gis nga dënnu yi ci nawet bi ci yàlla di wane boppam ndax lan. Mm-hmm. mooy gu bari. Mm. mooy gu bari def lu araam. mooy gu bari. waaw beneen bi yàlla ni leen dinaa leen natt ci la eh, eh, eh, nablukum bi shay'in minal xawfi wal juu'i hmm. yàlla leen di ngeen dem ba problème mu alimentation da ngeen koy am lu ngeen dundee. ëpp naa de. Ah, ko ëpp naa waaw amul am na. ah mais mi ngi fi. Hmm. mais tey la dund gi gën a cher. yàlla waxoon nañu ko. wa naqsin minal anfu amwaal wala anfusi. Hmm. yàlla ne ne dee gi dina mel ni tulleeg màlle dee gi. mooy agression bi ngay gis rey gu bari. rey waaye foofu taxumaa jug ci li nga laaj. Mhm. parce que yow rey gu bari gi nga laaj. mais question bi ñu war a posé mooy. Mhm, mhm. lan moo tax Sénégal heure bu heure bu ñu nee. dañ déglu bu ñu nee ay élection mi ngi waaj ñëw rek. rey yi takkar naa naa se. loolu Fatou. doon loo xamante ni dëgg-dëgg war nañ koo càmbar. maanaam Fatou rey gi lu mu leen di jariñ. jàpp doomu aadama. dafa naa am nga yooyu jot a dégg mhm. ci xeetu rey amoo ci ay ay kuppati ay uh, jëwu nit ki kuppati jëwu nit mhm. wala loqi bët ba loqi ba wala dagg loxo ba mhm. wala dagg baaraam bu mag bi ci bi ci tànk bi ci dagg baaraam bu ndaw bi ci tànk bi mais yooyu ay tegtal la yaa oustaz yooyu yëpp soxna Fatou ay tegtal la mm. yoo xamante ba ci nit dagg baaraamam bii. Mm-hmm. bi ci digg bi bi ci digg bi. lii nii. Mm-hmm. am na ñoo xam dañ ko soxla. baaraamu index. Uh-huh. am na ñoo xam dañ ko soxla dañ ko soxla. baaraam bii. Mm-hmm. am na ñoo xam dañ ko soxla. mais yaa oustaz lan la ñuy doyee. kon ñetti baaraam mooy baaraam yi nga xam ni soxna Fatou. ñiy def fétiche yëpp. di def sacrifice. bii daal baaraam yi ñoo leen gën a ñor ci doomu aadama. bu ñuy takk jaaro bi daal lañ soxlawul. merci beaucoup. mais baaraam bi nga xam ne mooy baaraam bu ndaw bi bu ndaw bi ak index bi ngi ñu joxoñ ak baaraamu digg bi mhm. ñoom dañ koy soxla mm. mu nekk yoo xam ni mhm. jar nañu détaillé ci waaw surtout beneen bi soxna Fatou mhm. di nga ñoo xamante ni bëtu nit ki lañ soxla bët waaye bët chaque jour ñu koy wët càmmoñ ba moo leen ci gënal tey yaa oustaz wax nga de soxna Fatou ñii def fétiche dañuy dem ba soxla xoolu doomu aadama. mais mais yaa oustaz. Hmm. li nga ma fi jot a limal yëpp xam naa ne des na. Hmm. mais ñoom lan la ñuy doyee cër yooyu ak lan la leen mën a apporter buñ ko jëlee ci doomu aadama bi. ci laa jëm ak yow parce que yaa ma laaj da da bëgg naa yaa léegi di nettali. wax <laughs> loolu laa wax dama lay wax ni la. Mm-hmm. Euh, borom xam-xam ñoo wax ni almu kulli shay'in afdalu min jaahil mm-hmm. xam-xam bu mu mën a doon sax na faatu. Mm-hmm. nga gëstu ko ba xam-xam ko. moo gën ko ñu teel cee sob nag. da nga ci gëstu pour xam lu waral ñu koy def mhm. gëstu naa ci am na lu ma ci xam. ok waaye may ñaanal sama boojur euh, bu baax ñu koy wax góor gi Mbay yaay ismullahi al-azam moo ma yee. Mhm. ci lasraar. ok ilmul yi. Mhm. ku ne xam na ne xeetu xam-xam la boo xam ne dañ koy jàngale. ñu bari. di ko woote te xamuñ ci tuus koo xam ne ne amoo amoo adadu nafsi nit ki mm. adadu nafsi nit ki mooy lan mooy nit mm-hmm. boo gis mm-hmm. turam dafa am lim bu mu lay jox ah. il faut nga xam turu nit nga xam turu nit ki faatu soo ñaan nga bind faatu déet oustaz déet oustaz déet oustaz dama ne <laughs> soo ñaan ah, bul lim sama nombre de nga jël faatu <laughs> chiffré ko jël soñaan chiffré ko. Mm. dem jël turu mm. moo tax ñuy wër turu yaay. waaw. ah bis tey kon su may nuyu sama yaay du ma jaar ci tur bi de. jaar sa lu ko gën a doon danger amul. mais garaawul ba tey. garaawul nit yaayam juru ko. Mm. Fatou wax naa la de. nit yaayam juru ko de. yaa oustaz ku ko jur. ok nit yaayam juru ko. ah déedéet. ku ko jur yaa oustaz. nit koo gis maamam moo ko jur yaay ji lantinoor la moog baay ba. déggati naa nag. oui eh, oustaz Souleymane Diaw. koo gis ñu naan la yaayam moo ko jur yaayam juru ko. Hmm. baay ba ak yaay yaa ca yem. lantinoor lañu jaarukaay lañu mais ki ko jur dëgg mooy maamam. mooy maamam moo xam bu góor moo xam bu jigéen. moo tax olof tëggee ko ñi la semence su da koy la nag foofu dama la ah. koy nangul. waaw parce que ñi dañ naan ma yow sa maam nga gën a nduróol que sa yaay. waaw loolu dafay am. Ah. moo tax ma la faatu koo gis yaayam juru ko maa la wax lii papaam juru ko maamam moo ko jur. oustaz yow xam-xam feeñ na de. waaw ki ko jur. Mhm. sa maam bu jigéen. waaw ki ki ki lay ñaanal. jaar ci sa ci sa turu yaay. man su ma jaar ci turu maam ji. appayage laay jaar maay gën a gaaw. yaay gën a gaaw waaw parce que maam ji moo jur. Mm. bu loolu maam ji dafay dafa wax nga dëgg moo tax chaque jour boobu tur ñu bari ko xam. mais sa tur boobu baax na. Mm-hmm. dina tax mu gaaw mais ba gën a. ba gën a baax xam na laa ko. waaw ñuy mm. xam lii may wax. maam bi gën a gaaw maam bi moo gën a gaaw. mais yaa oustaz. waaw. kon man sama turu maam dootuma ko wax de. ëpp naa def <laughs> ëpp naa def sama maamu jigéen. sama maamu jigéen sama maamu jigéen. yii boobu dama koy gàll. Ah, waaw daa ilaha illallah boobu moom ëpp naa ay oustaz continue fi nga ne am na solo ñu ñëw fu doy waar. Mhm. xam nga. Mhm. ñun ñëpp xam nañu ni. Mhm. am na saar bu ngand ci alquran. ñu koy wax suratul baqara. muy nag. du dee ko saaru nag bi. histoire dafa gudd te yaatu. Mhm. su ma ko bëggee lim fii laay fanaan. mais bokk na ci li li tax sunu borom digle woon ni nañu rey nag. Mhm. pour xam koo xam ni dafa génnoon àdduna te xamuñu ku ko rey. Ah, moo tax mu ne nañu rey nag. waaw mais luñ ci jublu. Mhm. mooy bopp bi. bu ñu paree nañ ko dóor ci dar bi. ginnaaw der woo xam ni ay wurus ay or ak ay jamaay bari sa mërtal lañ ko ci mooy njëkk la. Mm. pour néew ba mën a wax. loolu la ci jublu woon. dama lay jox exemple ci tënk. ci tënk ci tënk. na mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. histoire bu yaatu la. moo tax nag. dañ koy jotee. Ah. day am looy bëgg. nga bëgg ko am mënoo ko am ñu ne dama wuti nag. dama nag. yaa ngi may dégg. waaye léegi boo amul nag. mënoo dajale ay nag. Mm. li mu xaalisu nag boo ko amul. moom lañ lay jaayee baaraam bi. <laughs> baaraam bii. dañ lay jaayee remplacé ko nag bi dañ koy jaaree bëtu doomu aadama dañ la koy jaayee. sacrifice boo xam ne nit ngay rey. boo ko defee xoola contraire li alxuraan indi. Mm-hmm. contraire moom ñoom moom la ñuy utiliser. Ah, maanaam lu du yàlla diine teg digle xam nga xaru tabaski xaru tabaski dañ ne la deret ji rek la ci yàlla soxla mm-hmm. est yaa ngi dégg mm-hmm. ñii sacrifice ñuy sacrifice. Mm-hmm. am na loo xamante ne deretu jëmmu doomu aadama la ñuy soxla. Mm-hmm. pour nit ki egg fi mu bëgg egg. Mm-hmm. mais yaa oustaz kon ray bi su ma déggee ci sa biir yi wax wàllu mystique bi moo ko tax a jóg. mystique moo tax ray jóg. ci lu mu mën a doon. léegi nag xam problème bi ne. dañ ci soxla ay xale. oh ay innocent. seetlu ray yu ëpp lu ci ëpp. am na ñoo xam ne deretu mag la ñuy soxla. lu garaaw lu garaaw mës na am ñu koy nettali ci benn ci benn histoire. dem nañu ba mystique dina la yóbbu ci nga soxla deretu nitu yàlla. jërëjëf maanaam nitu diine. nitu diine comme nag yaa oustaz danga nga laal fu am fu am solo may ma mm. foofu. Mm. comme gisoon nañu ay jamono. ñu mm. doon attaqué. imaam yi mhm. booy xool tabaski deux mille vingt trois am na mhm. imaam bu ñu bëggoon a attaqué mhm. le moment où bi muy jiite euh, julli euh, jouru tabaski kon loolu moo waral ñuy attaqué imaam yeeg ñoom seen ndax jamono yee gis nga Sénégal foofu dafay bëri woon Fatou yaa ngi mooy waxtaan loolu domaine boo xam ne domaine bu doy waar la bu yéeme laa lay wax lii ñuy lii nga bëgg ñu waxtaan ne lu doy waar lu yéeme laa lay wax dama ni la xeetu ray gi koy jëfandikoo ñoom laa yonent bi alayhi salaatu salaam. Mm-hmm. papaam ku ne xam ne Abdallah la tuddoon. lan lañ ko jotee. ñu ko jotee nag lañ ko jotee. Mm-hmm. kon moo tax nag garaaw na de. bo bari na ñoo xam ni pour ñu egg fu ñu egg. Mm-hmm. dañ leen di reyloo ay nag ci seen i turu at. ok. buñ la ko mënta reyloo ci seen turu at. ñu ne reyal juróom-ñaari nag. nag bu ne nga def ko juróom-ñaari saam. sacrifice la sacrifice yooyu bu la xatee ba xat la ba xat la. mënoo ko am waaw ñun la benn ciru doomu aadama la koy remplacer. daay maanaam juróom-ñaari nag yi nga war a rey. amoo ko ci xaalis amoo ko ci xaalis. donc benn ciru doomu aadama moo koy. remplacer la ilaha illallah mais yaa oustaz mais pourquoi ñu ñëw sax egg baaxul mais moo tane woon comme cër bi benn cër la ñu soxla ci nit ki. bu dee baaraam bi pour pourquoi ñu romb ko rek këtt baaraam bi bàyyi ko mu dund. lu tax faaw ñu rey nit ki tamit. deret di la ñuy soxla ca moom. soxna yàlla mm. mystique yàlla ci yàlla musal zulmaaniya. mboolem xeetu sëriñ bu koy def dee moo la tey dem sawara. dinañ ci ñëw yi ma la wax nii. Mm-hmm. nekkul lu ma forle. xam naa ko xam-xam nga fi génn yaa te ku ma xam man. Mm-hmm. ku ma xam. Mm-hmm. xam kan mooy bàyyi góor gi Mbaye Ndiaye ismullahi azam. amul lu ñu waxtaanul ci domaine bi. ndeysaan maanaam yéen da ngeen cee gëstu pour xam réellement. très yi nu ñuy def ba. très bien dund doomu aadama yi ak soo bëggee fallu ci dara. wala nga bëgg doon dara. doon dara waaw. lii ngay def ak lii. moo waral. Mhm. moo parce que dafa am zulmaaniya àndut ak. Mhm. maanaam fétiche mystique. mystique àndut ak nuuraaniya àndut ak allahu akbar. Mhm. allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. astaghfirullah astaghfirullah yàlla ànduñu. loolu mooy yàlla dafa wàcc bien et le mal. merci beaucoup. Mm-hmm. boo ci bëggee di am chaque jour ay pouvoir. Mm-hmm. il faut bee moo gën a gaaw. ma lu leer. ay pouvoir. daan mm-hmm. déwle kenn mënu koo song. Mm. deret ju bari buy faral di bari ci sa yaram. Mm. nga koy sangoo am ñoo xam ne dañ koy sangoo. sangoo deret ay nit fii Sénégal. pour pour mystique pour am pouvoir yu bare bare bari. Mm. pour am ay pouvoir. pouvoir li mu soxla mooy deret. kon yow yaa oustaz su ma la dégloo bu baax a baax yenn pouvoir yu bëri nii ci doomu aadama. nga leen gis. nga leen gis. xaalis bi gaaw. xaalis bi gaaw mbir mi gaaw. kon defloo nañu nit ki loo xam ne boo ko nettaloo ñun la dangaa ngaa iñaan. jaay daxa illallah muhammad. soo ko nettalee. soo nettalee waa ji fu mu jaar. te ñun la yow da ngaa iñaan. te li ma ci gën a jaaxal yaa oustaz après nit ñi yow rek dañ lay jox bopp. kenn du xam soxla wuñu koo xam ne dafa taaba taaba ba egg ci niveau bi mu egg ki bosam gën a gaaw la ñuy gën a jóg waaw te li doy waar yooyu yëpp soxna mm-hmm. Fatou li doy waar mm-hmm. boo ko utiliser ci naat am ko boo ko utiliser ci ginaar am ko ma lay wax nii boo ko utiliser ci naat am ko mm-hmm. boo ko am ko te ñoom du leen ko jaral pourquoi pas ci ñi ko xam. ok ñoom ñoo lay sànq di la laaj loo ay nag indil la problème nga dem ba mënoo too ñun la lii nag bokk sa ngir yàlla fit ngay am. premièrement boo toogee seen kanam loolu la ñuy jëkk laaj ndax am nga fit. am nga fit et pourtant mënoon nañ fa ba jaarale ko ci naat yeeg. ginaar boo ko xamul nag Fatou boo ko jàngul xamul. mais ñoom xamuñu ko moo tax ñu leen wut loo ay nit. waaw oh. léegi nag problème mooy problème bi mooy. yéen a ngi tuddee ay papaam Abdallah. Mm. mais téeméeri nag lañ ko jotee. téeméeri nag. waaw mhm. waaw téeméeri nag yooyu amoo ko ñoom boo demee ci ñoom ci wàllu ñu koy def dëggantaan. Mm. ñu ne dañoo soxla téeméeri xale. li ma la wax Sénégal aayuñu sax. téeméeru xale. téeméeri xale remplacer nag yi. waaw téeméeri xale. pour ñu mën a atteindre seen. objectif pour gagner xëy na li ñuy xëccoo dañ koy am. walla am tour dañ koy am après. mais yaa. moo tax bari seen. Mhm. di ñee alalam. alalam di la jaaxal ngay tiit. Mhm. naan diw li mu am bu ñu la waxee fi mu jaar. moo tax parfois ñu mel ni sax ñu ciy soxor parce que dañuy xam niñ ko amee moo tax. loolu xalaatu xola bi garaaw laa lay wax. Mhm. da gis ko koy def ba pare. Mhm. xëy suba woote ni day tàntal na bi. alhamdulilah <laughs> te ci mystique rek lay dund te ci mystique lay dund yaa oustaz. mystique bi mystique bi day dem a dem ba mel ni da nga noob nit ñi. mais da leen am par koo woo wuy si la. koo daw bay faqasalu daw bay faqasalu nit ki da ngay dem ba nangu fitam xelam dootul nekk ak moom mhm. yooyu ay bagages yoo xam ne ruus naa koo nettali ci télé bi nii te te yaa oustaz actuellement ni sénégalais yi am na ñuy def loolu pour atteindre seen objectif seen yoon nekku ci déggoo li ma lay wax boo toog ñoom premièrement ma wax la benn affaire mhm. nga hmm. chaque jour mhm. ñuy def loolu nañu gilet yi ñuy sol rouge noir la mooy mooy mooy seen symbole <laughs> yaa oustaz yow mii yow ndeke da nga nëbbu woon sa bopp de xam nga yii yow non nëbbu dañuy waxtaan rek émission bi moo ko laaj te lii mënoon nañoo dund cent ans du ma wax ak yow. doo ci wax chaque jour. gilet yi ñuy sol rouge noir la. rouge noir bi balaa ñuy sol gilet rouge noir bi. Mhm. dañ leen xaatimelee percal boo xam ne deret lañ koy xaatimee. doo xam deret la caay yàlla léegi ñoom toujours bu ñuy sañse loolu la ñuy jiital muy jiitu seen kaw. waaw mais oustaz yow noo def ba xam loolu. yow tamit waaw parce que dama ko gëstu. dama ko waral nit ñi man kenn nax ci lasara moo tax bu may gis gars yi di def nii. Mhm. dama leen ñoo xamante ne xamuñu sax li ñuy def jànguñu ko. xamuñu mhm. mais yaa oustaz ñu naan loolu mhm. amul. mystique du jàpp nit su la jàppee c'est parce que yàlla moo fa jaarale say fan war a dem. ñu naan nit mënu laa liggéey ba rey la mais yaa oustaz loolu loo ci wax. xam nga ñooñu wax loolu dañoo jàngul moo tax. waaye ku jàng dëgg. Mhm. gëstu alxuraan dëgg dëgg dëgg. Mhm. di nga comprendre ni amul lu mystique mënul. yaa ngi dégg. Mhm. alxuraan ñi ngi lay nettali na am na benn secrétaire bu ñu daan woowee Haamaan. Haamaan il était très dangereux. waaw bi ñu nekkee xale dañ ko daan fowee soo watoo ñu naan la Haamaan. ah moom mooy secrétaire Firawna dina boobu. ñu wax boobu. ci jamonoy Firawna ku ko gën a mystique amuloon dafa mystique ba mystique Firawna. daay dafa waaw mooy waral des fois nga gis nit nekk waaye nit mystique borom entreprise ba. merci beaucoup ba lépp lu mu def nit ñi dañuy posé wu la question lan moo tax. kii mënul dàq kii ak ñaawte fi muy def. ci entreprise bi ko mës a dàq parce que mystique. déggoo lu ma la wax. bis boo duggee ci zulmaniya. Mhm. ñi xam zulmaniya bu ñu déggee moo ko mooy ñi nga xam ne la am na ñoo xam ni. Mhm. dañoo collaborer rek ñi nga xam ne ci ay armée la ñu dëkk. ñooy koy garder. jaay taxa ibdallah xam nga lu ñu soxla ay cëru nit cëru liir <laughs> kon daal bàyyiwuñu sax liir yi doo liir yi dañ koy soxla ci seen wàllu am ñoo xam ne boo duggoon tey mhm, faatu mhm. bari na ku ñuy coow mhm. ku ñuy coow bari na ku ñuy faatu tey boo dañoo am seen i néeg spécial yoo xam ne ci seen kër seen jabar ñemewu dugg gi la nekk déggoo ma de loolu mi ngi ci biir kër gi coow sa jabar ñi mu fa teg tànkam balaa ngay génn néeg boobu bokkut ak benn xoola néeg bi nga gën a respecté ci kër gi boobu lay doon doo bëgg xale bu fa jaar doo bëgg ko fa romb doo ko bëgg parce que say bagage foofu la ne mais nag yaa oustaz affaire bi jaaxal na ma nag mhm. parce que da ngay gis nit ku siiw. Uh-huh. ay nit bëgg ko. Uh-huh. ba taxaw ne moo leen gënal seen ndey. ak seen baay. mais loolu mais loolu c'est surnaturel quand même. est-ce que xam nga ni su ma ci nekkoon di la ci détaillé fii lañ may fekk man. wala Souleymane nga xeex ak man man sax xarit. waaw bi ñu depuis des des années d'amitié. ndax célébrité boobu nga xam ne musul dox xamul ne sax yow Souleymane yaa ngi existe ci monde bi. waaw mais loolu c'est pas c'est pas naturel. mais bi garaaw gi laa lay gisoo fa ay entreprise yu xëy rek fay. Mhm. <laughs> lu ko fay. Fatou Zulmani yàlla nañu ci yàlla musal yàlla na boo dajeeg moom. ay amiin. yàlla na boo dajeeg moom amiin yaa oustaz amiin yàlla yàlla musal. yàlla yàlla seen i i mais mais mais toll nañ ci dimension yoo xamante ni. Mhm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam ki ko defoon Zulmani yee ba tax yàlla ni. Mhm. yéen jullit ñëpp su ngeen su ngeen su ngeen di muslu. deneen muslu ci. fallaxe ak naas. fallaxe ak naas lu tax alxuraan 114 saar yëpp yàlla dañu mu yonent bi joxe ordre ordre la joxe de. ne nañ koy jàng muslu ci nit. waaw waaw maanaam boo xëyee. waaw nga muslu. boo mooy waaw alxuraan ni mu bare. Mm-hmm. loolu yonent bi joxe ordre. Mm-hmm. yonent bi salaa salaam moo joxe ordre. Mm-hmm. ci nañuy jàng fallaxe ak naas. fallaxe ak naas. moom moo ko joxe. ndax lan mu joxe. musulmaan nii la woon. dañ ko li dañ moom dégg naa ñu ko jàppoon dañ koo njibar. ñi war ba ñu téye yonent bi saa sala oh. yàlla seetaan ndeysaan waaw des fa day seetaan nag seetaan googu yàlla seetaanul yonent bi ndeysaan ah yàlla du seetaan faat soño ah waaw waaw mhm. te pourtant ki def liggéey bi mhm. mi ngi tudd Labid ibnu Axsam lanu yonent bi la bokkoon nekkoon màkkatal mu kara mhm. bokkoon ci ñu contre daawa bi yonent bi di def. Ah, ci ñu contre woon bi contre yonent bi. Mhm. bokkoon ci ñu gëmul ni yonent bi li am na. Mhm. gëmu ko. mais dafa jàng fétiche jàng mystique. agression yii am tey. rey bu bari gii nii dee gi bari nii. moom mu jàngoon loolu xam ko. mu liggéey ko yeneen bi mu utiliser ko ci yeneen bi salaa salaam. affaire bi réussir. waaw dafa réussir. kon mën na réussir ci ñëpp. waaw attention. Mhm. Fatou. Mhm. li jàngal lu bari. Mhm. ci lan la ko utiliser. la ko utiliser. waaw loolu la ñu la ñu war a laaj. ay ca oustaz mbokk internet yaa ngi lay déglu. bi Labid ibn Ahsan di liggéey yeneen bi alayhi salaatu wa salaam. Labid ci lan la liggéey yeneen bi alayhi salaatu wa salaam ci lan. ci yaa oustaz ak dafa jar a dafa jar a boo wax amul. Mm. musiba am. Ah, très bien. boo gisee ñoom ñëpp di naat. naat. Mm-hmm. parfois ñu naan la rayal naat. waaw <laughs> am nañ ci anecdote yaay fàttali ko bi ñu àndee woon <laughs> jóge woon na benn émission. waaw waa ji woo woon la rek ne la neel alhamdulilahi rabbil alamin waaw nga jënd naat ak naat non jour laa sa jikko yaa oustaz. <laughs> loolu faaw ñu toog. Ah. waaw loolu leneen li muy wax nii. Ah. man ak moom la woon loolu beneen gaam la woon mais loolu tax ñoo ñëw tey waaw keroog Fatou gis na sama mer moom. keroog gis na ko. waa ji naan la rayal naat. xam nga. Mm-hmm. loolu lu tax mu gara mm-hmm. ñii la ñu baaxoon la ñii ni naat la ñu utiliser. dind mm-hmm. guro gu weex ak guro gu xonq guro gii. guro gii ngay gis. ya guro yàgg na fi de. ndaay la guro moo ñu. Ah, guro gii ngay gis ak puso. ak puso. mais ci kaw naat bi lañ ko jam naat goo xam dañ ko rey ba mu dee naat bi daful maanaam dañoo rey ba mu ba mu ba nekkatul. ko jam ay puso lañ ko jamee ba mu dee. ci biir naat bi lañ ko dugal. mais yow yaa oustaz naat bi du la yow ñoom ak benn ak puso ak wëñ gu xeex wëñ gu xenk wëñ gu ñuul te jamono yonent bi laa leen wax de. moom la ñu liggéeyee woon moom la ñu liggéeyee Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam attention yow may déglu mhm. boo demee ci tafsirul Jalaalayni mhm. bi mu nettali sur muawidataani falax ak naas mhm. indiwul naat ah, bi waaw indiwul naat waaw moom dafa wax rek dafa wax rek tudd guru yi tudd yi nga xamante ni moom la moom la ñu encercler puso yi puso yooyu mhm. mais teen ba ñu ko yóbbu zarwaan mm. dañ ko fa mhm. un mètre ci penku teen bi un mètre ci penku teen foofu la ñu gas suul ko yonent bi yónni Aliyin ak Zubayru mm. te loolu xam nga kan moo ko wax yonent bi saa salaam kan moo ko wax yonent bi ah, loolu jar lijjanti kan moo ko xamal ni ko feebar bi nga feebar dañ laa liggéey xaw ma ko xaw ma ko jibril ndeysaan oh moom xaritu yàlla la woon. yonent bi dama dem ba feebar bi téye ko. tàngooru feebar bi dugg ko. dugg ko mu nelaw. ndeysaan. fi mu nelawee. Mm-hmm. jibril nekk ci bopp bi. Mm-hmm. mikaayil nekk ci tànk bi. saan ku ci nekk di ko wax mu doon gént ci yonent bi. Ah, mu nekk genre gént. gént looloo tax gént dafa important. alerte la ah, léegi nag. Mm-hmm. taatiirul anaami benn téere la ku ko jàngul bëgg laa wax ni la da lay firil gént hmm. da lay nax day lekk sa xaalis day lekk sa xaalis moo tax listixaara mhm. ko te jàngul lu ñuy firee gént ba pare ah, lu important ngay wax nii de kon gars yi dañuy nax nit ñi ci lañ parce que xamuñu lu koy tekki xamuñu ko gént moom nee nañu alerte la ci nit ki yàlla dalay wan dalay wan ne am na luy waaj a ñëw si yow yaa ngi dégg. Mhm. listixaara bi dagan na. Mhm. ñoom petaaw taxumaa jug ak détail yooyu listixaar dagan na listixaar dagan na na leer. Mhm. te daa yonent bi aleyhi salaatu moo ko santaane. ba pare wax nu ñu koy defee. nu koy defee. yaa ngi dégg. kon Soxna Fatou. ñu bàyyi xel ni Sénégal rey gu metti gi nga xam ni takkar na naas. ñu dellu si waat tuuti ci loolu. ci loolu. mooy dara waralu ko. tey dara waralu ko. lu dul bëgg daraja. bëgg daraja bëgg doon DG. bëgg doon ministre. bëgg doon député. bëgg doon sëriñ. bëgg am kàddu. bëgg yilif nit ñi. bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg. bëgg a éliminer Souleymane Diaw pour toog ci palaasam. merci beaucoup loolu moo dellusiwaat nañu bëggee woon a éliminer yeneen bi. ba liggéey ko ci naat. merci beaucoup. xam nga kon. bari na loo xamante ni ñu koy def. te ñu ci baree baree bare lay tax ñu ko def. Mhm. buñ la loon laaj tey rey gu bari gii lan moo ko war a faatu. amul sens amul sens. mystique koo xamante ni jàpp nañ ko lan la la la rey lan la rey ab gelam. ab gelam. moo maanaam waa ji. Mhm. lu mu rey ab gelam. koo xamante ni lan la lan la jëkkër ak jabar la jëkkër ji rey na ko. Mhm. ci ñàkk fayda yoo xam ni xeetu rey yoo xam ne dañ bu ñu la doon expliqué la mën a nekkee. nan a nekkee. koo xamante ni lan la. Euh, semaine bi yàggul. Mhm. lan la doon bëgg a def rendi doomam. yéen nga information lépp ay tettal la waaw. waaw mhm. rendi doomam daaw. daaw yàggul. Mhm. koo xam ne rey na fi ñaari doomam. ñaari doomam. ba pare rey boppam. rey boppam waaye rey yii xeetu rey yii. lan moo tax heure bu ñu nee ñu ngi waaj a dëgmal dara rek lii am. am na lu ñu ci jublu. non attention néew ma ni ñoo loolu ñoo ñoo tax de. ñoo ñoo tax pourquoi affaire yi am. pour muy tase quoi te attention. mu mhm. jàpp ni sax du ci milieu boobu rek moo tax. Mhm. déedéet. am na yeneen am na ñoo xam ne yow profité ci at ci temps bi. ci temps bi maanaam ñoom duñu duñu duñu ay célébrité. waaw mais dañoo profité ci temps bi ci temps bi. bu ko defee ñu mënoo attirer attention ca célébrité merci. <laughs> mais oustaz yow wax nga dëgg. comme nit ku simple benn sénégalais lambda. waaw bu ñu digaloon mu. sacrifier mu def mu xaar ba élection yu jub si. ay ba élection jub si mu profité moom. ci ci am ci biir donte ne doo seteeg ñële. waaw mënoo leen leen caa setal waaye moom it mi ngi ci biir mi ngi nga leen caa setal. Mhm. fekk seen yoon nekkul seen yoon nga leen caa taqal fekk fekk nekkul. ñu ngi koy léegi nag bu ko defee attention yi day attiré wu ci ñoom. fekk ka ko def sax kenn xamu ko. day ñëw àndandoo ci commentaire yi. Mhm. ay élection yi dikkati na de. Mhm. fekk moom ci boppam def na ko. Mhm. je te te yaa oustaz indi nga lu am solo. ñoom ñëpp. jamono ji ñu toll. dugg nañu àll bi. xëy na sax mën jaratu ko. jaratu ko ndax période yi xew. mais pour wax la rek ni la ah, mais dañuy daas fanaana. waaw pour wax la rek ni la. <laughs> mbiru fétiche. doy na waar doy waar goo xamante ne rey. Mhm. doy na waar doy parce que yi ñuy soxla ci jëmmu doomu aadama lu ci nekk dafa am lu muy tekki. dafa am lu muy tekki am lu muy def faatu. Mhm. te yooyu xeetu xam-xam. Mhm. xam-xam zulmaaniye la. xam-xam bu bon la xam-xam boo xam ne yàlla gërëmu ko. yonent bi alayhi salaatu wasalaam gërëmu ko dinañ ñëw peut ci fin bi. wax ci li ci diine wax. waaye mu doon yoo xamante ni. yu ñu war a mettre def très attention la. ak yenn précaution. maanaam yan yan eh, naka lañu war a fagoroo. Mhm. naka la ñu war a fagoroo ak njaboot gi ci loolu parce que li ci gën a gaaw nag du ma la ko nëbb. Mhm. Mhm. li ci gën a gaaw yaa oustaz. nga am deretu xale moo leen gënal nga am deretu mag. waaw parce que kooku avenir am dafa des. lu bëri merci si si si ay waay sàmm leen njaboot gi téye leen xale yi. ay ca oustaz Kamal te te. mais as bu gi ah Fane bi gën a doy ki ñu denc ba pare. nga deux ou nga am ko ñu denc ko pare nga génne kooku dagg ci ram. non yàlla mën am na boo xam ne yàggul. Mhm. matul deux semaine koo xam ne la ñun tànkam nañu gis tànk bi moom leer na. tànk jigéen waaw waaw tànk jigéen ah, fii ci Sénégal fii Sénégal. mais xàmmeetuma suñu réew mi de. waaw léegi rey googu rey googu démb démb am na ku ñëw ba suñu bunt kër di war doomam. démb. si man na wax naa ko li ma xam. heureusement ci man la day day day ñëw mm-hmm. buntu kër ga. di wër xale ma ma gis ñi mu àndal mu leen laaj ku mu romb sama sama doom lay wër. sama doom lay rek ni la. Mm-hmm. mbiru fétiche ci côté boobu. Mm-hmm. xeetu xam-xam la boo xamante ni. Eh, li si mën a génn bari na. na yaa oustaz. ndax nee naa la. nit ñi dañuy def très attention. da ngay nekk ak sa jabar sax. ñu jënd ko bu yàgg ñu jënd sa jabar ci loolu. surtout nag ñi nga xam ne dañoo am tur. te am ko ci lewin nag ndax am na ñu ko am ci lu lew. faatu. Mhm. góor ñu bari. Mhm. mu yeewuñ ci côté boobu. Mhm. wat sa karaw ba mu nde doon ndel. bàyyi ak sa jabar. wóorul. karaw boobu mën nañ te dofloo nit. benn karaw bopp doomu aadama benn karaw bopp. mën nañ la cee dofloo. Sénégal buri nay dof de yaa. muy benn. ñaareel wax naa la cër beneen ba mooy we we we yi mm-hmm. we yi mm-hmm, mm-hmm. amul luñ ci mënta def nit amul luñ ci mën moo xam weewu loxo la moo xam weewu tànk la est amul luñ ci mën a def nit amul ba ci karaw nëq gars yi dañ koy soxla de <laughs> boobu moom sa jabar rek nga ko mën a jaay nag déggoo li ma la wax gaa yi dañ koy soxla wala sa jabar te su côté zulmaan yi côté def loo xamante ni am yoo xamante ni ci sa sa sa digganteeg sa borom kër dëgër. Mm. ñoom xale jigéen ñi jaral na leen ko. alhamdulilah tey. waaw waaw. xam hmm? indi woon nañ ko fi. waaw jaral na leen ko mm-hmm. yooyu jaral mm-hmm. dem ba def ko mu doon poudre. mu doon poudre tey. moo tax. mais oustaz après loolu bu ñu ko defee poudre lan lañ ciy jublu. ça dépend ci bagage bi ak lu ko tax a jub. Mm. yaa dégg mm-hmm. moo tax au moins yow nëbbu. yu mel ni su amee. Mm-hmm. nga gis nag yeeg xar yeeg. tour deret di bari. parce que tour deret fidye la. fidye la fidye boo ko déggee. Mm-hmm. mooy def loo xam ne day tax li waroon a am nii du am. Mm. wala def ko lii nii. sans ñu du am waaw lii sans merci. changer destin bi. kon daal doomu aadama fitam egg na ci yàlla tracé dara. waaw loolu kenn waxatu ko. <laughs> mu ne moom day wëlbati destin waaw loolu kenn waxatu ko. yàlla mun a seetaan ah, la mm-hmm. léegi nag yooyu noonu mm-hmm. xeet yooyu mm-hmm. moo waral mag ñi démb ñu am secret xeetu ñaan yi ñu doon créé ñoom ayca oustaz wax ñu ñaan yi jàll ci leneen jaata ndax xam naa ne lii non buñ ko toppee lii jar nañu defaat ci beneen émission daa oustaz li ma ci wax daal fa soxna Fatou ñeenti baat a ngi du alxuraan na nga ko def ñeenti fas ñeenti fas. takkal ko sa doom. waaw waaw muy ban ak